alaykoum, merci beaucoup Djibril Je euh, ngi Sante, euh, ñi fi monsieur le ministre Serigne Khadim euh, Serigne Abo Sall aussi ak sama jeune frère Amadou ak docteur Diallo Je nga xamante ni ñun édité suñu livre muy loo xamante revanche la li ma gën neex ci ci livre bi mooy parce que xolé euh ay trondo Serigne Touba di di gëstu ci Serigne Touba di bind ci Serigne Touba dafa dafa sedd xol ndax euh Serigne Touba bokay bokay analyser da ngay gis ni euh dafa melni dafa jël revanche am sur la communauté ndax ndaxte dafa fekkone nit ku ñu ñu dominer ko trop japp ko presque ñetti téeméeri at. jàppe ko jaam jóge ci jaam coloniser ko defa ni kii matul dañ ko war a civiliser eh, nit ku ñuul dem ba jàpp ni dafa war a doyadi dafa war a toppe eh, waaw wut ku mu gëm bu toppul tubaab topp naar sëriñ Tuubaa ñëw jël diine raxas ci culture arabe ba mu set induñu ko xamante ni dañ ko móol ak suñu suñuy valeur ak suñuy culture moo tax euh, lim ñu bàyyeel muy yoonu murit ñun rek ko am ñun rek la ñu lool waaw di nga gis ñëpp mën nañoo euh, dooni jullit mais différence bi mu ñu jox euh, dafa jar ñu ko ci sant tous les jours boo xoolee livre sëriñ sëriñ xaadim bi la politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba bu la boo boo yëree xaalu liyarkaan da ngay xaw a tiit tuuti ndax ni sëriñ Tuubaa mel ni ku xaw a ñoomi nguur ñu nekk ci nguur ndax sëriñ bi dafa fekkoon benn contexte boo xamante ni da doon xeex ak buur nañu doon fonctionner politique bi ñu yoroon di xeex ak naar ngir li ñu jàppe woon nit ku ñuul donte ñoo ñu indil diine ji tubaab ndax te ni ñu moome woon nit ku ñuul ba nit ku ñuul jàpp ni boo rafetee sax da ngay rafet comme tubaab wala dangay rafet comme naar waaye doyloon nañu xeebloon nañu gëmuñu suñu suñu mu pour nit ku livre Sëriñ Xaadim bi donc da ngay naan euh, Touba ni mu politique ban politique donc euh, le le Qui Xaadim di wax ki daw la te espace la boo mënoon na fa am benn apport mais mu xaw a ragal tuuti nit ku yor pouvoir buñ ko indee ci politique am ban politique la Serigne Touba doon indi ndaxte politique la bi ñu wax ci boo xoolee boroom xam yu mel ni Machiavel nga xamante ni nooy def ba génn ci ngay xool wala politique boo xamante ni yaa ngi xool ni ko Aristote doon waxee nan lay def ba amal njariñ askan wi

serigne bi Tuubaa dafa tel samp projet de société xam nga bu wax projet de société ku ñëw ba ci all bu xonk coy nga samp fa rek moy ba nga am un projet de société boo projet de société di nga am sur gis-gis ci walu politique ci walu économique ci walu social ci walu culturel ci walu culturel presque sur tous les domaines serigne Touba nonu la ñëwé di créer lu bess

dañoo jëlal dafa dafa jël la quintessence bàyyi culture ñëw mool ko ci culture am euh, moo tax booy gëstu da ngay xam ni sëriñ bi dafa amoon fit parce que yoon yu mu doon jël yépp ay yoon yu bees la yoo xamante ni moo ko rëddal boppam ndaxte il fallait que mu implémente ko ci euh, ñu dëgër bopp ndax yàlla buy wàccee nit ñu baax dafa tàmm di ko wàccee ci ay nit ñu dëgër bopp waaw damay naan souvent bu dul woon sëriñ Tuubaa bool bool yi xaw ma ku leen mën a def jullit xaw ma ku leen mën a waaw tof bañ topp la xam naa ni ci wàllu àdduna kuñ ci jekku mën nañ laa nax waaye koo ci jekku mën nga koo nax ci Serigne Touba euh, travail boobu Serigne Touba euh, def ñu indi ñaar yu am solo Serigne Khadim mi ngi koy wax sur le crowdfunding bu ñu xoolee li anglais yi di wax crowdfunding en 90 ci la canadien neen ñoo ko créé moy lepp lo xamanteni buñ ko bëggé def nañu dajalé def ko or en 1917 ba serigne Touba di taxawal euh, muy xeyna euh serigne Touba bi muy tollé parce que bo xolé serigne Touba dundam dafa toll foo xamante ni da doon liggéey am fo xamanteni da doon supporter am fo xamanteni ni dafa melni leppam léppam na maintenant mu commencé won ces grandes infrastructures ba muy commencé sa première grande infrastructure muy mosquée bu djourbel mënoon na koo defal boppam waaye ñaanoon na mag ñi ñu jox ko kenn ku ci nekk ñaar fukki ngurd ak juróom-ñett boo ko convertir léegi bon ñun banque yi day nekk cent francs CFA ci ci ci ci francs CFA constant 150 000. mag ñi ku ci nekk indi ñu tabax lu mu ci jublu woon du woon bëgg jël seen xaalis def ko ci jumaa rek mais bëggoon leen wan ni mën ngeen demal seen bopp te même stratégie bi ñu. tabaxee jumaay njaareem la ñu tabaxee raay bi la ñu tabaxee euh, jumaay Touba la ñu tabaxee masalikal jinaan bi loolu moom la ñu tabaxee université bi ndax murit bu ne yaa ngi ciy def sa doole à un moment donné ku ci nekk da gis ni sa alal la yëf la donc sëriñ bi wutalu nañ loo xamante ni ci wàllu koom lépp loo xamante ni bëgg nga ko def xam nga ni ñu koy defee sëriñ Xaadi bi ngi wax ci livre bi tollu àllarba bi nga xamante ni kenn ku ci nekk da ngay ñëw joxe sa ñaq pour la communauté ndaxte murit bu ci nekk da ngay naan mën naa am li may am ba pare waaye war naa mën a liggéey loo xamante ni du pour man mais pour communauté bi la communauté bi loolu tax mu am doole ràbbalante bi ñu ràbbalante seen biir damay naan toujours Sénégal te sëñ xarim joxe na ci ñaari tur euh, Abdoulaye Dia ak ak Ndiouga Kébé ba léegi Sénégal dañu am problème ñi gën a réussir ci àdduna jànguñu ci école bi tubaab bi jàngale te ba léegi du ñu jéem a xool ñooñu ban yoon la ñu jaar ba réussir dañ leen jàppee ay bawol bawol rek or toll nañ foo xamante ni suñu école yu management yi war lañ leen wan ni am na ñoo xamante ni ci niñ leen yare ci niñ leen jàngale parce que boo xoolee Serigne Touba ba mu ñëwee li mu njëkk a dindi mooy caste dëkk parce que bu njëkk ba dafa amoon doomi soxna ak doomi mbaar doomi mbaar loo baax baax da nga ñëw jàng alxuraan jàng ñaari saar dellu sa mbaaru baay doomi soxna ñoo daan jàng Serigne Touba moo fi jël dindi fi loolu jël ay doomi soxna di leen liggéeyloo jël ay doomi mbaar di leen jàngalaloo alxuraan créer une société égalitaire ba mu fa jógee yar gi mu leen yar sàkkuloo leen lu lew ci la xaadim moom lay wax liséité muy talabul xalal wala mu nekk kasbul xalal sàkkuloo leen lu lew nit nag boo demee bay sàkk lu lew ndax sëriñ bi mi ngi naan boo sàkkoo lu lew bu sa biir lewee moom loo bëgg di nga ko am loo ñaan mu nangu waaye bu sa biir lewul boo ki dul def lu lew eh, dina jafe loolu pour nga ñaan yàlla nangu waaye puus bi muy puus murit bi nga xamante ni buy liggéey day fexe ba fàggu lu ëpp soxlaam ndax boo fàggoo yàlla may la nga mën gan bu ëppee sa soxla rek da ngay mën a xitmaal say say moroomu jullit te xitma yamalu ko rek ci moroomu eh, ci mbokk murit yi parce que ku tabax jumaa rek génn nga tarixa yaa ngi ci diine moy fexe nga ba ñépp mën ci dugg kon kenn ku ci nekk ci ñun sa yo xitmalé dara rek defaloko sa bop defaloko mouriti defaloko juliti nit ñi nga ko defal ndax serigne touba vision yëpp nit la vision yépp xeexam yëpp pour nit ku ñuul siggi ndax bo xolé ba mu joggé Gabon préoccupation majeure moy wax ni mën ngeen top sama tank fi ma jaaroon yépp gàcce lu ma leen rusloo ma leen

Euh, dama naan souvent nit ñi il faut que ñu xam sëriñ bi ba koy ba muy ñëw fi mu fekkoon nit ku ñuul pour mu siggiloo ko gëmloo ko boppam gëmloo ko ni du naar du arab naar gënu la arab gënu la siggil yàlla dafa def moo tax dama naan toujours jeexital bi sëriñ Tuubaa jeexital ci murit yi musuma gis murit bu am complexe musuma gis murit bu am complexe damay dégg benn vidéo bu may envoyé sax benn sëriñ Tijaan di tooñ naan ñun tijaan bu ñu wax alaaji malik sax dañu naan Sidi Haj malik mais murit serigne Touba sax mu ñu ko wax serigne Touba la ñu wax <laughs> tellement amuñu benn gêne waxu niñ ko niñ ko yégué parce que lolu bu bu complexe jógee ci yow rek lo bëgg am diñ ko am et je pense que nite goomu gu ñu jox lolu moy politique parce que politique am nañ na nit ñi di jariñ nit ki kenn ku ci nekk ci ñun da nga war a jaamu jaamu yàlla ci jaamam yi ndax amul jaamu yàlla bi gën a féete kaw jaamu ko ci jaamam yi te jaamam yi nag doone ki sama mbokkum taalibe la doone ki sama mbokkum jullit la jaamu yàlla rek yàlla nag mooy àtte jaamam ëllëg moo ciy def li ko neex valeur yi nga xamante ni éthique bi nga xamante ni moom la ñu soxla ci politique parce que suñu réew yi dañoo dem ba boo mënee wax lu dul dëgg ñu ne kii politicien la bind naa benn livre ci politique bi ma comment votent les sénégalais première phrase bi président Macky Sall ba mu le livre daf ma woo ne ma euh, docteur prochaine édition na nga dindi na nga dindi li nga commencé li euh, c'est insultant ma ko non livre la yaay xam noo koy déggee rek ndax dama ko ben proverbe bu ñàkk la ivoirien euh ne ko voisine mon fils m'a trop du du euh, voisine na mais estime-toi heureuse parce qu'il sera un grand politicien et c'est extrêmement grave bu démé ba ku dul wax ñu ni yor mi soxla eh, nañ ni rectification def Touba politique bi bëgg Serigne Khadim indi ko ci livre bi livre waxuma la nit ñi lire mais vivre ensemble def suñu biir am te accepté wuñu ni ku bind ci sa mam muy max parce que khadim wane na la vision euh, politique de max parce que max vision amul won morale max demon na ba japp ni ku new doole war na néew ñi new doole war nañoo dajaloo foqati pouvoir bi ci ñu am doole moy prolétaire du monde unissons-nous libéral yi ñom japp nañ ni chacun pour soi Dieu pour tous nu waaye def sa saa yow war ngaa fexe ba yokk li ngay gañe keneen ki lim li koy luy wàññeeku ci moom sa yoon nekku ci Sëriñ Tuubaa nag indi ni xitma nag ku ci nekk liggéey la la mu mën a liggéey waaye na fexe ba ca la mu liggéey mu bokk ko ak jàmm yàlla yi éthique culture ndax mu dafa am culture bokk nañu ci li qui mondialisation dans la mondialisation nous nekk ci or nous identité participer dans la mondialisation am indi loolu notre participation sur la mondialisation culture la culture, nous devons dafa mais des valeurs négro-africaines la couleur de la peau ne saurait être cause de l'idiotie d'un homme ou de sa mauvaise compréhension qui Massalikal euh, après 70 ans après ci le et pourtant sont les pères de la négritude mais le père de la négritude c'est Serigne Touba ndax koy ni parce que sax yaram lañ lay ñu ne ki la Serigne Touba ci niveau ndaxte loolu yëpp bëggoon na wàcce seen niveau yëkkati nit ku ñuul ba nit ku ñuul siggi jàpp naa ni livre la boo xamante ni xëy na duñu ñu lépp kon lecture bi dina xaw a yàqu ak tamis gi jege si na waaye daal maa ngi ñaan na ko ku ci nekk liir di nga xam la non violence bi ñu wax nan la ko Serigne Touba doxalee mu ëpp doole fuuf gàndi min ñu jox mun ñu jàngal wax dëgg yàlla xeeb sa bopp mënul weesu nga bàyyi fi Serigne Touba di wax ay Mahatma Gandhi Martin Luther King te ni Serigne Touba defee culture de la paix amul kenn ku ko def ndax bal say non ci Serigne Touba la ko gissé jërëjëf maa ngi content ci waxtaan